jërëjëf mbokk yi premier combat de la soirée fii ci stade municipal bu Ngoundiane diggante Ousmane Gandigal ak Ada Fass Ada Fass moo leen wañ càmmoñ Ousmane Gandigal moo leen wañ ndeyjoor muy noonu ñu ngi leetoo ñoom ñaar premier combat de la soirée journée Faye production fii ci stade municipal bu Ngoundiane ndeysaan combat boobu moo ubbi baar bi ba Salim ndeysaan jàppante nañu ñoom ñaar xale yi jàppante nañu ñoom ñaar Ada Fass moo leen woon càmmoñ mu ngi noonu jàppante nañu ñoom ñaar diggante Ada Fass ak Ousmane Gandigal attention Ada Fass moom ngeen xaw a jàkkaarloo Ousmane Gandigal moo ngeen moo ngeen mu tàbbali dapante nañu ñoom ñaar waaye dara amagul attention la ilaha illallah mu ngi noonu ñaari xale yi jàppante ca kaw diggante Ousmane Gandigal ak Ada Fass 2 attention attention Oumar Gandigal dal na sëb sëb na plaqué ko xale bi bañ sa gàtt na combat ba bare a lu ma cinq minutes dem nañ huit ans ñu noon dem nañ huit ans ñëwaat diggante Ada Fass ak Gandigal ndeysaan Habib Ba ngi lewetoo ñoom ñaar waaye dara amagul Bodyguard sol na ko ca kaw ndeysaan lan mooy am da koy oñ wala da dañoo xaw a tolloo doole wasaani xale yi eh, dañoo xaw a tolloo doole Ada Fass 2 ak Gandigal ku nekk ci ñoom ñaar pied gauche nga jiital mbokk yi daw nañ jàppante ca kaw Gandy Gare moo leen jox ginnaaw Ada Fass attention attention ndeysaan ñaari xale yi daa mel dañoo xaw a bokk ni ñuy bëre dañoo xaw a tolloon doon ndeysaan

Gandigal daan na Ada Fass wala hay la Gandigal daan na ko Gandigal daan na Ada Fass Ada Fass daanu na wax na ak ñoom laaj na siisi masali ban heure moo jot ndeysaan attention arbitre tourné na cinq minutes bu dee stade municipal bu Ngoundiane Faye production moo ñu woo yéen a ngi seetaan ATT TV STV ak Phénomène TV kon du ca waxukaay ba mbokki Ngoundiane nuyu nañ leen mbokki Ndakaaru mbokki Thiès kaay nuyu nañ leen bu baax a baax attention ndeysaan ñu ngi daan séeréer attention pied gauche bi mu jiital déexee eh, eh. Njolla ak Ndaama waaye attention Boy System euh, riñaankat la borom camukat la moom Boy System waaw Boy System moo njool daan séeréer moom ngeen xaw a jàkkaarloo noonu moom daan séeréer kii yanda ko indi kii jamono dee ko indi jungaale na too ñoom ñaar tirwit bi nee na teg ku nekk ndeysaan boot nga sa cumikaay mbokk yi doox la ilaha ñaari ndaanaanu lamb la ndeysaan ñu ngi lewetoo ñoom ñaar booy système moom nga xaw jàkkaar mu ba ca suuf la Oumar Sali moo la ko wax attention Gane Seereer door na dalul ndeysaan Gane Seereer ak Boy System ndeysaan arbitre ñu ko attention dugal na ko benn ñaare Gane Seereer ak la ilaha illallah attention attention ñu ngi xeex jàppante nañu ca kaw ñu ngi door Boy System sol na ko ndeysaan Diane Sereer moo leen jox ginnaaw noonu mu ngi waree mbus naa kii mu ngi waree ngunjaan ñaax waaw daa mel ni beneen pare baa ngi di egg si pare baa ngi di egg Umar Sadio waaye ñaari xale yaa bëre attention Boy System am lu muy préparé Boy System ak Gane Serer jàppante nañu ca ndeysaan mu ngi rokas moom Boy System Boy System ak Gane Seereer ndeysaan ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu mbokk yi ak Boy System Boy System moo leen ndeyjoor ndeysaan oh mu ngi noonu mbokk yi Diane Sayer ak Boy System ndeysaan arbitre bi atte na leen ñaan ñi ni lay ñi baye plapo ko nga xam ne mooy yëg ci muy sa ñax mbokk yi am premier ndeysaan dina le spécialiste en carrelage ah Diane Sayer dafa mel ni dem na ardo arbitre soxla waat na combat ba diggante Boy Système ak nga xam ne mooy euh, Gane Seereer Gane daanante ay ko waaye dara daanul la ndeysaan attention na ko benn gauche moom moom Gane municipal bu Ngoundiane mu ngi noonu bokk yi diggante Gane Seereer ndeysaan dara amagul monsieur l'arbitre ndeysaan ñaari xale yi loo ci mën a dégg lu ñu def dañ koy téléphoné diggante Boy System ak Gane Sereer moo leen jox ginnaaw noonu Boy System ngeen xaw a jàkkaar lool ñoom ñaar rek lu ñuy def dañ koy téléphoné moom a ci jaaxal attention la ilaha illallah la ilaha illallah oh oh ñu ngi ñoom ñaar na moytu na moytu pied bu mu laal ndeysaan attention daw na jëli ko attention oho ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu mbokk yi

jaw na korose ko ca kaw jàpp na ko ca kaw la ilaha illallah dara amagul ndeysaan arbitre bi atewaat na leen est-ce que dem mi-temps bare nañ bu neex waaw Diane Serer jox nañ ko victoire Diane Serer am na victoire Diane Serer gagné na ko par avertissement ndeysaan voilà muy lu am solo kon mbokk yi xale bii moo jël drapeau Sagnokh Ngom bi gaan séeréer ban yëg nga am ginnaaw bi nga jëlee drapeau bi. xanaa dama sant wala di sant sama ñaari waay bi di sant mbooloo mi fi di sant sama supporter sama entraîneur di sant ñëpp. waaw kontaan ma kenn waaw maa ngi sant ñëpp daal nga bëre moom nga bëre moom combat bu métti lan moo tax combat bu métti ah combat bi gis nga de kii nii xam danaa bëgg a bëre moom da ko moo tax ma jël ko daanaka daan naa ko mbaa trois fois bii mooy quatrième fois bii mooy quatrième fois bilaa wala boo gisee ni ma bëre moom war ma woon ko daan rek on naroon toog man bëre ma sax suñu ma sax day walaay wala sama sama man li may indi si yëpp maa ko indi xam nga drapeau ki nga jël nga naan la jàmbaar la Sadio Ngo Sadio Ngo loolu laa ko waxee sànq loolu laa ko bu ñu ba maa ngi lay ñëw seet si léegi barki suñu bàmba dañ ko yóbbul drapeau waaw insha Allah rabbi moom doy na ma xaar rek lan nga promoteur bi tegal ko waaw promoteur bi tamit kontaan naa ci moom trop ndax wax ko sonal ci affaire bi ñun tamit sonal na nga wax kontaan naa ci moom waaw lii tamit wax dëgg yàlla kontaan naa kontaan naa ci moom kontaan naa ci moom waaw bàyyi ma kenn waaw waa ji xale bi xale bi jël naa drapeau saa ñoom en tant que promoteur ban yëg nga am tey. non oh, xanaa kontaan rek. ci yëg lu bari ci moom. saa ñoom moom du ma mën a wax ci moom lu bari. parce que di sama xarit. di sama lépp. wax dëgg si yàlla ñu soq lu bari loo xamante ne. manuma koo wax fii nii. lu mu indil woon dara dara dara sax man dama cee kontaan li mu sama dara <laughs> te di sama nit maa ngi koy jaajëfal bu baax na ban kontaan nga kontaan naa trop macha allah bu yewoon sax dem wallaahi laa jëm am na solo kon ñu jox bi mu ban ban kontaan nga ci am ah, Sadio waaw acca kon kon kontaan ngeen ci am xale bi jël na seen drapeau waaw euh, ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp di baalu ñëpp ak bi ñu jóge muy bi di baal ñëpp ak ah. Euh, di jaajëfal fay production bi baa bi ndax lii yëpp na ko cee ñàkk a fekk ndax yëg-yëg bi mu am ci wan ba mu tuddee ma drapeau man naa ne man maa ko liggéey su ma tuddee drapeau dama koy jaajëfal bi ma jógee foofu nag ma gërëm délégation bi naa ne sama délégation man naa wax ni sama délégation bi waaw ci ñi eh, ñi ma ci mag ñoo ëpp ñi ma ñoo xam ne man naa leen ci mag samay mag kese ci nekk waaw peut-être nag su ma limee jiw mooy Ismatul municipal. dem rek waaw sama mag la. Adama Diop di sama xarit di sama lépp. suñu dara euh, lépp lu may def da koy xam lépp lu muy def dama koy xam. kii di Cheikh Naas euh, entrepreneur. sama grand la sama conseil la. Khadim Sène Omar Yer Moussa Sarr Cheikh Mor Talla mooy suñu mag ndax mooy magu Cheikh ak ñi ñu àndal yëpp su limee juum kon donc ñooñu awma leneen lu ma leen fay lu dul gërëm leen leneen li mooy may wax ak jeunesse suñu Ngoundiane lii sport la sport la que le meilleur kii nga xam ne moo ñàkk par décision arbitrale tey suba mën na am victoire kon affaire bi nañ ci dem par fair play waaw kon am na loo xam ne gisuma li ko fi jaar soo ñàkkee demal saafonte ak ak sa ak adversaire mu xam ne moom yàllaa ko jox ndam mm-hmm. ëllëg yàlla dina la jox ndam ki ñàkk nag démérité wul ndax ku seetaan bëre bi bëre na wax dëgg si yàlla bëre na yàllaa ko joxul ndam na gën a liggéeyaat te gëm naa ne beneen yoon day am ndam waaw ki ah, gañe nag na xam ne yàllaa ko ko jox te mu gën a liggéey eh, incha allah Ngunjaan moo gañe li gën a génnul fen Ngunjaan moo gañe kon donc eh, jeunesse su Ngunjaan bi nañ xam ne ñoo bokk ndey bokk baay lii suñu biir la nii lañ mën a def pour euh, mën a jàppalante mais ci yoon benn doomu Ngunjaan warul bëre ak moroomam mais ni lañ mën a def suñu ñëwee pour ngu biir Ngunjaan pour man a animer dëkk bi mën a euh, jàppale doomu Ngunjaan yi nii lañ mën a def kon su suñ ko comprendre noonu ku ñu daan ak ci daan yëpp problème war man a am mën ngaa promoteur bi teg combat waaw promoteur bi teg combat bi comme li ma wax ci sama njëlbeen wax rek baa ji yàllaa ñu bool depuis bu ñu ñëwee Dakar di jàng si métier du leneen moo ñu boole yàlla moo ñu boole yàgg na sama booy la booy bu ma dëggal nag wax dëgg si yàlla lépp lu muy def ci àdduna dina ma ko wax te fépp ma ko wóobu ci àdduna mu fekki ma kon su ñëwee tey ne man lay tudde combat bi wax dëgg si yàlla aw ma ci li wax waaw moom bi muy ñëw ci man dafa fekk ma am beneen parrainage ñu am liñ ma tuddee leneen mais dama ko ne aw ma li ma la def. waaw looloo tax ma jël parrainage am. kon donc moom maa ngi koy jaajëfal. di ko gërëm di ko sant di ñaanal ñëpp ñëpp temps bi mayewu ko jërëjëf. waaw loolu la am na solo jërëjëf jërëjëf. jërëjëf bi nga xam ne moom moo ci chantier yi. tool bi nga xam ne moom moo ci ak mën na di liggéey gëm boppam. ngir bañ yaayam jooy. bugul boppam jooy. bugul ay boppam jooy. waaye tey il est le secteur général de l'orphelinat ànd ak waa jàng ci baax ko ma doon sëriñ kii mooy Bada Sow xale baa ngi nii bu ñu wax ñu ne kii wala ñu ne woon mënoo la ñeenti baax sax da lay jaaxal ba ma ko waxee wala sama wala sama paar mu ne ma saa ngi jaay ko jox la beneen kenn moom laa mel naa ko am moom oh te ma leen foofu ayca man tàmma yëkkati sa loxo man tàmma lii ayca ndeysaan ñu ngi acca avec bi muy wax ak ñoom la mu nu mu nangu ak la mu bañ ndeysaan adama ndur ka waya adama ndur na mu xaar pour pare daa mel ni wax ak waya ndeysaan ndeysaan diggante Diomaye ak Bantamba Diomaye moo leen wan càmmoñ Bantamba moo leen wan ndeyjoor mu ngi naan bokki arbitre bi su leen combat ba combat spécial ndeysaan dama proposition ndeysaan attention Diomaye ngeen jàkkaarloon ndeysaan attention Bantamba sax dina ko benn arrêt ndeysaan mbokk yi attention mbokk yi Diomaye Sow mu ngi waree Ngunjaan Samel mu ngi waree Ngunjaan na ko benn yaare gauche attention mbokk yi attention Diomaye ak Bantamba attention ah Bantamba rëpp na jogaat Diomaye ak Bantamba Bantamba rëpp na jogaat oh oh ñoom mooy ngeen jàkkaarloo Bantamba moo leen jox ginnaaw oxo bokki ñu ngi bore lang de ñoom mooy ndegeñ na ko la ilaha illallah Bantamba euh, ak Diomaye Bantamba ak Diomaye Bantamba moo ngem bo ngem lu vert li mooy noon mooy jox ginnaaw attention mu koy kat ñaari mboolu ndaanaan lañu ndeysaan Bébé Diomaye Sow Babou Diack ndeysaan Bantamba ak Diomaye Bantamba ak Diomaye Bantamba ak Diomaye gaay toogat Bantamba ak Diomaye Diomaye ngeen xaw a jàkkaarloo noonu Bantamba moo na ci wetu saako yi fey la hay lala tey fay production loo ci mun di déggee stade municipal bu Ngoundiane bi fees na bi baax waaye mooy xool ak Fatou Sarr ci kanam wanante fu mu ne rek mu jégg tam jàppante nañu ñoom ñaar xale yi diggante Diomaye Sow ak Bantamba Wessa ñu ngi boole lang de diggante Diomaye ak Bantamba Wessa daje boobu yàlla di suuf waat ak combat bi diggante ak Bantamba naa buñ demee taa ñëwaat waral nañu lew tooba bu nekk tey na nangam daal Bantamba Bantamba Diomaye attention Diomaye ak Bantamba Diomaye sum Bantamba gënaat nañ faa koy Badou Amad avertissement Bantamba jëlaat na avertissement ñuy lewetoo ñoom ñaar Tanko Diomaye ak Bantamba ñu doon ndeysaan xale yaa ngi lewetoo ñoom ñaar Diomaye yaa ngi sànni ay arrière gauche droite ndeysaan am na di am Mbathou Ndiakh kon Mbathou Ndiakh Mbathou Ndiakh mbokk yi Diomaye daan na Bantamba Diomaye suul daan na Bantamba Diomaye daan na Bantamba Diomaye moo di stade bi waral na ma stade bi Diomaye lu mu indi oho la ilaha illallah xale baa ngi noonu bi ci na combat ba diggante Mayakor Sarr ak ki nga ne mooy Petit Sarr Daro Petit ngeen xaw a jàkkaarloo lool ki nga xam ne mooy euh, Mayakor moo a jox droit mu ngi met attention daw na jëli ko Mayakor na ko ñoom ñaar la ilaha illallah foofu mu koy forcer mu koy forcé Petit Saat Daaru mu ngi forcé mooy la ilaha illallah tey fay production Mayakor Sarr moo leen woon attention attention Mayakor rëbbeelu la ilaha illallah Mayakor daan na ko Mayakor daan na ko xale bi toog na Mayor Koor Sarr daan na Basirou Tine la ilaha illallah la ilaha illallah Mayor Koor daan na ko xale bi daan na ko dafa teg fes Koor Sarr xale ba Bujaan Mbaye daan na ko ndaanaanu lamb la Umar Sali barki dem mu ne ma ma du du xeex la ilaha illallah mooy koor saate ba dina jaloore waaw du mun a ñàkk Omar Saliou nañ déglu réaction yi wala ñu xaar leen fii Omar Saliou nañ leen solo la combat bi yàggul xale bu Mbayeen bi defati na jaloore xale bu Grand Yoff bi defati na jaloore Omar Saliou la ilaha illallah Basiru dafa toog wala dafa teg fees mooy Aliou Niang mooy koor euh, d'abord félicitation. waaw merci Badou. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu waajur. di sant suñu mbokk yëpp gis nga saar bi nu mu mel. waaw yi yëpp ñëw jàpp ci kon amuñu seen fay. dañuy bañ a lim juum. waaw waaw. mais mais may ko noo am ci ndam xale bi dina lu jaay doole de. non xale doole ak yàpp bokk. waaw waxoon nga ma ko barki wax naa la ko. <laughs> man ci ponko laa gën a ci xale. kon kii man damaa mel ni koo yónni ngu ñaan rek aw ma ci kii mooy loolu. ko ñëpp nga def tey de. ngu ñaan xamuñu ma moo tax waaw. des na tuuti nañ ma xam incha allah. waaw kooku bëri xale bu mel ni biir dakam biir tundam sax nag. mu daane ko nii ban kan moo ci des. non fi mu nekk nii moom gars yi xanaa ñëw may saas kii dama ko may saas rek. Ah. dafa fi dara. Ah. comment bi risque la woon ci yow. soo soo non du risque parce que man li ma mën doyloo naa ko xam naa lu mu doon xam naa man maay kan. xëy na ñu xamut gis yaramam ak nu mu toll. risque la ci ñoom ah. waaye def. ñu ko dàq bëre. ëpp ko doole fuuf ñun kàmb ga Tivaouane Peulh ñoom Mbaye Tine Junior a fa ne uh-huh. bu moor fa dam uh-huh. ak ñeneen gaay yu ko gën a fara ëpp ko doole fop uh-huh. kon kii yëngalu ma kii am doole lan mooy sa kerem poids lourd poids mu dajee rek ñu lang ñu lang poids mu ñibbi non xanaa gëm sama bopp rek ak manin ah, waaw tarbiyu làmb waaw waaw léegi laa bàyyil ba kii rek li simple bi rek waaye bëre naa fu nekk. Mm-hmm. fu nekk. Mm-hmm. yàlla xam na ko. lan ngay wax ba parrain bi parrain bi Aliou ñaa xam nga ndaanaan la. waaw parrain bi di ko ñaanal rek drapeau bi bu bu bu allah ñu tuddewaat ko drapeau bi mu man lu mu mënoon. indi ko ma jëlaat ko incha allahu rabbi. Mm-hmm. waaw suñu borom yokk ko ba yegg ko. barki yonent bi. après euh, Aliou ñaa xale bi jël na sa drapeau loo koy wax. waaw xanaa sant ko. gërëm ko jiiteel ci cant gi nag. Baaji Fay mii nga xam ne. damaa jële Touba ba fii ci dëkkam jox ma fi teraanga joo xam ne nii la toll oo ma fayam maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal sant ñi ma àndal ñëpp ñaanal mbër mi drapeau bi yàlla na ko jik mu yeneen ak yeneen yeneen topp ci bu may ñaan nag barki borom Touba laa wax ñaan naa ko ci moom ñaanal naa ko ñaanal ki ma tudde drapeau bi baaji yàlla daa dogal ñu xamante ci sànce yi lañ xamante mu xam ma rek jël ma taf ma ci boppam lu mu boppam rek yéene na ma ko wala lu raw kon amu lu dul di ko ñaanal mm-hmm. ñaanal sama xarit yi ma àndal yëpp ñu gunge si ma ñaanal mbër meeg ñi ko topp ñëpp yàlla na ko yàlla joxaat combat mu amaat ci ndam ñu feete drapeau bi ay ati ati at borom di ko mën a defee saa yu ne ni ko bëggee mm-hmm. loolu rek laa amoon dama ji jeex na euh, Mayakor jël na jël na drapeau Aliou Niang ban kontaan nga ci am xanaa di sant rek di sant rek di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di a santaat yàlla bu baax a baax bu loolu weesoo bu may wax si Aliou Niang di gas yàlla sama yaram day daaw parce que dañoo daj ci àll gi fi nga xamante ne kenn newu fa yaay newu fa papa newu fa mu nekkal ma sama papa nekk fa sama yaay wax naa ko sama maag bi ma bokkal ndey ak baay yaay comprendre kon bu ma jëlee drapeau bi jox ko ko uhuh. am na li tax moom xam na man xam naa dañuy daje lu bëri loo xamante ne dama koy manqué ci biir sànc bi uhuh. mu jàppale ma ci lu bëri muy xaalis muy leneen dama koy wax ñëpp dégg ko ci biir presse bi uhuh. lu bëri def ma ko ciy jàppale yàlla xam na loolu rusuma ko nag rusuma ko wax de lu bëri def ma koy jàppale ko joxee du la li ma ko war a deloo lu des na nag naa bu di ko masawu nag bu baax a baax a baax coono bu mu a Touba ba fii nii maa ngi ko koy masaw bu baax a baax moo xam nag lu mu soxla yal na ko ko a defal bu loolu weesoo damay ñëw ci mbër mi may ko sant naa la gërëm naa la da nga def li kenn deful indi ma biya yoo xamante na walaay lazim da nga jaay sa billet bu mu jeex nga delluwaat jaay samay loos presque jeex nañ yëpp yëpp yëpp yaa ko jeexal kon bu loolu weesoo dama lay sant di la ñaanal si drapeau bi yaa xam loo ci bëgg ak li ci tegu ak li ci teguwaat yal na ko yàlla defal kontaan nañ trop macha allah